waaye kon dafay mel ni sonnloo pour sa kilifa donc ku sonn ngir sa kilifa yàlla am lu mu la fayee waaw bu ko defee kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñaanal képp ku ñu bokkal yëf yi yàlla may leen ñu guddi ci fan te yàlla yokk leen ci barke yàlla yokk leen ci sutura ñu ngay sant ñëpp ku ne xam na ni lu mel nii kese kese defu ko njaboot yi mobilisé wu kenn ku ne à sa ñu bokk ci dayra ak ñu bokkul ci dayra ñi amee parti politique ak ñi amee yeneen regroupement yooyu yëpp léeg nga gis sax ñu yónnee annoncé ni dañuy ñëw waaye mujj gi nga yëg ni ñëwuñu di nga xamit li tax ñëwuñu lan la waaw dafa am ñoo xam ne fii ci Sénégal boo jógee ni ci Moustarchidine yi laa jëm duñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaru ko Moustarchidine soxlawul kenn ndax yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ne da ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy sonkoo ci boppam man maa ko war a chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlee prison mu nekk dans le coma ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Wade Khalifa Babacar Wade ni ko taxawul ma Sonko mook Pape Alé Niang parce que ci de leen lañu ñu jëm te ëpp naa bàyyi noonu mu taxaw moom professeur bu ci ne sax du dem ci këram ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jaar gannaawam def leneen waaw kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rekk moo ma jaaxal mooy jomaay jomaay ku baax la te yëg naa ni lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool li xew dinga nga am loo comprendre waaw mais yàlla mu ngi fi du fi jóge waaw na continuer rek am yéeneem bu rafet fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma lànk waaw ma lànk recevoir uma kat waaw ba démb ba démb ba démb am na ko fi woote waaw waaw Sonko moo ma yónni woon bu dee doo ma recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kenn séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu lañu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla bindee la leen yàlla bindee mais ñun sunu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rek nga xam ko waaw bu ko defee kon nag dañu tudd Yewwi Askan Wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yegg si man maa tax mu yegg si fa du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defee yàlla rek a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de l'avant defe ni kon nag ca loola it laa dëgg ba duma Macky Sall duma yu saf-sap waaw li nit ñuy soow yépp soow soow soow man wóoroon na ma ni dafay dem mu des nag lay ñëwaat suite ba ndax am na loo xam ni pareegul waaw bu ko defee kon nag may ñaan nit ñi rek ñu ànd ak seen xel ànd ak seen sago te itam rekk bañ lu riir rek nga topp ca di dardari di teey dafay baax waaw ñi ca am seetlu am dégg ñoo nga ca mbokk yu bare sonn nañ ci xew-xew bi sax ñoom Barthélemy Diaz yónnee na fi ay ndawal yónnee fi ay enveloppe te xam naa it au fond li xalaat lan la ndax yóbbante na wax ko ñeneen noonu ñeneen noonu waaw Déthié Fall mu ko yóbbante Cheikh Youm mu wax ma ko Anta babakar Ngom waxoon na ni fii lay gàmmoo xaw ma nag ndax mujj naa ñëw walla ñëwul bu ko defee réew mi ci boppam moo yëngu te dafa jaxasoo ku yebu ni tekk rekk ba xam lii riir fu mu jëm waaw yenn ti wax yeeg yenn ti tontonte yeeg du ko xaw a jar ndax bari na lu ci am ñuy laaj lu ciy sama position way fekk na dama mës a wax ci kër gi fii wax ni man nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom looloo tax yu bari yuy am mais am ci yoo xam ne sax man lañuy ñuy attaqué mais ça ne me rien ndax daf ma wóor ni ñi koy wax raw naa leen ba noppi waaw yàlla xam na ko ñoom ñi sant si ñëpp amu ci kenn koo xam ne dinaa la xool ba defa ne naw la nga pour man bu la neexee nag def seen groupe raggante seeni gannaaw dem wooye ñu kenn xamul pour ñu di leen defal propagande kooku seen affaire la moi j'ai pas besoin waaw ndax yàlla ma defal propagande ba noppi waaw ko defee rek ngeen xam seen bopp te ngeen gën taxaw capitaine wax na leen ko ci seen daje yu mujj yi am na ko xam ne bu ñu yebee kilifaam rek moom la waaye njaboot bu xam kilifaam def la ko war taxaw taxawaay ba ko war kenn du yëpp kilifaam waaw bu ko defee rekk ñu yërëm njaboot yi yërëm itam sunu gan ñi man maa doon tenir pour que ñu bañ di guddee ci gàmmu yi ndax buñ fi ñëwoon cinq minutes sax mu doy nit ñi kon nag bu ñu amee trente minutes sax baax na bu ko defee li ci des nit ñi dem récupérer tuuti bu subaa lu ñuy mottali ñu mottali ko bu ñu war a jox kàddu ñu jox ko mu wax hey delloo cant ci sunu gan yi ñëw ni ko oustaz Cheikh waxe ñu ci jóge Algérie ñu jóge marok ñu jóge Côte d'Ivoire ñu jóge Cameroun ñu jóge Mali ak sunu waa Mauritanie ak waa Gambie ñoom ñëpp tabaarakallaahu ku ci ne na mu rafete rekk taxaw nga ko yal yàlla fay leen te yàlla barkeel seen lépp te yàlla yokk sutura yi te yàlla yokk tawfiq yi ma jox capitaine mu conclure te joxe ñaan ñun ñëpp ñu ñaan ko yeneen te jàmm bu suba bu suba nag ñu soog a yeggali li ci des am naa sama bokki bopp yi Mouhamad Mbacke ak Sidi Ahmedil Amin xam naa ba suba am nañu wax bu soobee yàlla kon nag sëriñ nga conclure rek waaw incha allah